ki nga ne mooy Yaya Jammeh téléphone ba mu yëkkati woo Barrow doy na doy na doy na loo bis day jeex. doy na. I like to see these people. See some telephone, number to credit. Sometimes you love it. Hey! Do you know my heart now, Musola? Office man postman, gis nga contributors. Xaar gaaw ci nga def. Hey! Yàlla rek yeyoo nguur. Si daa noon princesse. Ni kii am naa xaar ba pare ngeen ko addi tàggat. Je donne kii baax. hai Baro hello hello hello Baro hello Baro yaa ngi ma dégg Baro hello Baro kii fala gosal jaati ta soo ko waatee bi léegi ban moment laay dugg allo Baro Baro allo allo allo saako allo allo allo alo allo. allo. waaw Baro Baro allo. allo yaya allo allo way ah Baro waaw congratulation congratulation congratulation félicitation thank you thank you thank Hi. you very much thank you this is the best president waaw yàlla yàlla na nekk a sa njiglaay ah jërëjëf jërëjëf yàlla na nekk a sa njiglaay jërëjëf jërëjëf ay yow ma ma laaj la ñaata at nga am ah, because am na 24 24 years ah. la nga di doon liggéey ba yaa nga nakali ah ba man su ma jaar jaar naa jaar jaar yu bari dégg naa dama doon garde immeuble garde wis aleel gis nga jaar jaar jaar jaar naa rek jaar jaar naa rek hey maa ngi laa ndokale di la amal teew teewlu ma la dara dara dara dara dégg nga ah. yaa ngi dégg maa ngi dégg maa ngi dégg maa ngi toog ak journaliste yi naka ci Dakar yëpp yëpp ñu nga toog dama la def haut because dama la def haut-parleur pour ñu dégga waaye kontaan naa <laughs> waaw man wax. this is the best président. yes this is the best président. yes. nguur nag dafa man man hey d'accord d'accord. man maa a kontaan parce que. parce que am na yëpp ñu naan naan bu même bu fekkee dafa gagné te mu coow am Gambie. loolu dara loolu dara la yàlla ba ba def benn coow. xëy baax man maa man maa a waa man maa la woo. yow da ngaa déglu man maa la woo da ngaa déglu. da ngaa wax am naa mbette di la woo. Ah. <laughs> yàlla moo dogal lii. lu yàlla dogal nag kenn mënu si dara yes yow bul fàtte man maa nekk sa léegi. moo tax ma wala ici sa bés président yow président bu nga na nga fi nga jaar. voilà nga jaar soo waxee ma dama war a wax soo waxee man dama war a wax. hey pour ama na lii dëgg yàlla mu nekk sa njiglaay dëgg. amin amin amin man nag du ma génn Gambie maa ngi kaane laay. soo dëggee dama toog foofu ma bay. loolu yëpp du di la ñaanal yàlla. parce la jàmm dëgg. amiin amiin te ne àddina moom lii rek la. dëgg la trop ah because it's not stress. waaw man ma benn stress. yaa ngi amul problème man de maa ngi ñu ngi kontaan bu baax because yow di ñaanal jama. li nga yenu li nga yenu yàlla ko attan. parce que Gambie tuuti na waaye antax ko moo jafe. waaye Gambie ma ne. yes. Gambie tuuti na waaye antan ko moo jafe. ah. waaw loolu dama la wax dama la junj. waaye nga xam ne ma amal la benn affaire yaa. hey. ma amal la benn affaire. hey. bët du de bët bët. hey. ma ne bët du yenu mais xam na lu bopp <laughs> loolu dama laa junj rek. dëgg la dëgg la waaw yàlla baax na yàlla baax na. <laughs> daa ngeen ay junjante parce que fi jaar ku fa jaar taxaban. waaw ma ne fi nga jaar. ku jaar ta yow fi nga jaar ku fa jaar taxaban. Ah. defal jama. amiin yàlla may la muslaay. because nga xam ne Gambie du bana du bañu rek. naka naa Bruce bi Serekunda ak yeneen daga yëpp. waaye Gambie tuuti na de yéen ko moo jafe. yenu ah. gàm yenu moo jafe. tuuti na eh, waaye xam nga lu bokk atende. hey eh, d'accord because maa ngi lay ñaanal ndam dégg nga. jërëjëf jërëjëf ok yàlla ko am. lii bu amee man la neex. lii ah? ma ne lii bu amee man la neex yëkkati suma téléphone. Ah. balaa résultat yi mu daanu ma woo la am na ñu ko li ma def nii yombul. moo tax dana li ma panga kenn du ko jeex. waaw kon jeex naa. <laughs> journaliste kenn du ko jeex. journaliste yëpp ñu nga fi toog ma jël sen question because après ma gis ak yow pour wala kañ waaye dama toog ñaari weer de dama guma léegi. dinaa toog ñaari weer two months. ah mais yow citoyen gambien nga. dama toog months laa wax dama guma dégg nga. baax na la ah. ma loo fi gis rek dafa jeex. loolu xam nañ ko. li ma dem yaa sa téléphone mi ngi eh, because léegi nag li ñu jaaxal mooy loolu tax a wàcc nga ne da nga ne da nga fi toog deux mois. laa léegi. dara dara du ma saa ah, ne da wàcc ne da fi toog deux mois ndax lan loolu. waaw léegi gisee ma ne dama toog two months. Hmm. because nit ki mënoo la gagné rek nga gëna. Hmm. il faut nga xool bor yi. Hmm. il nga fay bor yeneen daga yi xam ne dañu leen lebaloon. ma fayee ñu fayee ak yeneen yo xam ne dama ko lijanti because li ma def nii nag lu jafe la yombul de naka président balaa compte bi jeex nga ne d'accord naa man gaye nañ loolu boo waree africa yëpp ñu ko fi def bariwul xanaa rek <laughs> jigéen ñi dinañ commencé xeesalaat ñi doon yuutal seen tubay dinañ ko yuutalaat xam naa ne di ngeen buga loolu ngeen buga koo xam ne dafa yuutal tubay am ba tubay bi yuut ah. ngeen commencé xeesal man li ma ko xeesalkat yi la ak borom ñaari kuri ak ñi yuutal mhm. ak ñi xam ne dañu bëgg a xapi noos ñoo ñoo ma daaneel ak ñi xam ne buggu ñoo lagati arab bi am ne moom la waxoon ngeen di janga buggu leen ko anglais moo leen gën a moo tax ma daanu yàlla yàlla baax na eh, eh, eh, ma nga ne ma yaya yow ñu élection yi jaana ngay wax yaya kañ nga ma commencé wax yaya te eh, te ta ma because nga commencé ma wax yaya. waaye yaya oh, nga jox cer. cer bi nga ma war a jox mooy ma nekkee président danga ma doon wax la nga ma doon wax. yaya lu tax nga jékki-jékki hey lu tax nga jékki-jékki di wax sama tur direct live and direct danga ma mos wax yaya. Balama président. nan laa tudda nan laa tudda. eh Saga Cissé. nan laa tudda. Babali président. balaa ma wax Babali lan la njëkk a wax. ah yow jugaguma sax si foto bi nga wax yooya. yow da ngaa fontu de xanaa. Ah? non eh, non. mystique mystique. hey Sagal Sagal. Sagal. hey eh, yow yaa dama dese na ma ñaari weer. hey. Eh. Babali man sax. ak lan. président nga wax ci ka baro ñoo gusa nga commencé wor maa ngi xaar ba ma gën a bi ba kenn waale hay jugal naa leen naa leen naa leen xamal naa dara suma oto bu rombee ci daka bi maa yaar ba kenn wax yayaa ni ma ma doon wooye naa leen dee ma ko wooye this is the president two months ñaari weer moo ma dese waaw génn gu ma sax ngeen di wax na leen xale yoo xam ne dañu ko chef de quartier man du ma de quartier xëy ma leen ma ma wax pour nit ñi mën a dégg man li ma leen wax dafa leer président la ba tey du nangu kenn jaar suma tur li tax ma bàyyi maa ko wax ah. yàlla moo ñëw jeex na ah. gën a commencé jaar suma tur ana nga xëy